macha allah yu kawe. Mhm. soxna Fatou Bintou nii. Mhm. ñu teg tuuma ji. waaw fa ah, ñëw sëñ bi sax parce que bokk na tey li waral waxtaan bi ak jotaay bi tey. Euh, muy tey bi nga xam ne Mollah Morgun da ko def euh, euh, jël jël jël jël ay kaddu daal di koy teg ci soxna Fatou bint Pouye di soxna Serigne Abdou Karim Mbacké ci digganteem ak sëñ Moustapha Diop bu nekk bu nekk fële. Euh, mu nekk nag kàdd yoo xamante ni bi mu amee ba tey euh, ñu ci bari ci mbokk taalibe yi am nañ naqar am nañ tiis am nañ lu leen metti ba gis nga sotti yu bari sax am na waaye yamul sax ci euh, soxna sëñ Abdou Karim Mbacke boobu da koo teg ci soxna soxna sos bu tuddee. soxna kaltum soxna kaltum si. fekk na ma kër soxna Nabu moom Cheikh Abdoul mm-hmm. Fattah. Mm-hmm. muy ku baax. keroog li muy bokk bokk ci taalibe Cheikh. Mm-hmm. màggal daaru Xuddoos. ku tudd sëñ Tuubaa mu jox lu fukki junni. déggoo man la Sénégal li fi xew mooy tooñ ku la gën mhm. ak tooñ ku la man mhm. ndeysaan c'est ça mhm. yow leer na la nii demal def micro territoire mola ma def loolu nga teg ko teg soxna kaltuum soxna kaltuum laaj waaw laaj ay nit ne leen ñaar ñii koo ci bëgg a doon kan ngay kan kan ngay kan ngay man nag maa ngi leen di ñaan bu ñu naree wax dara sang si. waaw nañ ma ko wax man. Hmm. man wóowu laa rek comme ñoom nañ ma ko wax. Hmm. buñ ma ko waxee man amul problème mais nag boo inventé wu doo gis looy wax. Hmm. barke si ma Bamba. boo inventé wul sosoo amoo loo wax. kaddu yi bi nga ko déggee sëñ Mamour lan la touché na ma nag parce que damaa xam ne tooñ nañ gor. toon nañ une femme de personnalité. yaay puy. Mhm. très mhm. xam ne saa su ne mi ngi dugg ci internet bi. du xool lu baax muy ndindi ndindi. Mhm. koo xam ni keroog bi sëñ Ahmed Khalifa Niass di ñëw ndindi di siyaar sëñ Abdou Karim di di gane sëñ Abdou Karim ay kuddu or la génnee. maa ko doon séddale man man man. ñu tooñ koo xam ni lañ ko wax sax waru koo metti ndax moom xam naa ko tey boo ak koo doon boo ñëwoon tey di ko siyaar nii wala nga ñëw fa di ko nuyu si mhm. ma ne ko am na ku fii ñëw danaan ma góor la maanaam mu ne bu ñëwee na toog ne le mhm. waxtu julli du ko raw ndeysaan barke Cheikh Ahmad Bamba mhm. mu baax lool Tuubaa gépp nawloo ko kooku kon boo ko dee yàq yow yaa yàqu yow yaa toog ba yàgg nga créé waaye nag wax bi képp ku mu neex te ngay kilifa na nga pare ah. waaw te xam ni lislaam bi da jéem nañ ko daaneel ci corona jéem nañu te Touba mooy problème mm-hmm. Touba boo ko màbbee rek màbb nga diine ji mm-hmm. na leer Touba mooy problème mu tubaab yi ba tax ñu jël sëñ Touba exilé ko en effet un déclassement de cent cinquante tirailleurs et de cinquante espèces. déposant cent cartouches par homme soit vingt mille balles. ndeysaan. yàggul te ñun mënunoo ragal bu njëkk ba sëñ Touba kese la woon. wallaahi. seex si na fi. mu ragal lépp ba xat damul te booba tubaab bee fi ne ñoom moo akkan waa jooju nu mu tudd. Akhenaton nan. Akhenaton akka. Akhenaton. loolu mooy lan. Mm-hmm. ñooñu laa wax tubaab béereen ga ñoom mute <laughs> mute gouverneur président ñoom Kersan Zule commissaire des colonels chef du service administratif. Mm-hmm. ñoom Boya lieutenant colonel supérieur des troupes. Mm-hmm. ñoom Jorke directeur de l' par intérim. Kaolack ñooñu ay ñooñu fetal lañ yoroon nag Kajoor nag Bawol. not Siin not Saalum rey ñëpp suñu royaume quarante trente trois dammel yi ne woon Kayor yëpp tubaab bee leen rey. Ah, samay maam. faat ñëpp ñoom dammel dëccu fa njóogu dammel Amari Ngoone Sobel ah dammel la Sukaabe Ngoone Jéey dammel Samba Yaaye Fall dammel Samba Lawbe Penda lieutenant Sowét moo ko rey en 1886. dañu reyee ñooñu ñëpp ba kenn sañu toox la sëñ tubaab affronté tubaab bi. waa gone yu ndaw yor seeni téléphone rek mën nañoo changer réew mi réew am réew kenn du ko jël ca maanaam ci saaga. sëñ bi tey ñu laa utal euh, visa nga dem Canada. barke Cheikh Ahmadou Bamba suñ ma ko utaloon ma dem ba ma ko. ah dëkk ba dëkk yoon la tamit de. nañ ma teg ci yoon. Hmm. moo laal sama sëriñ moo ñoo ñoo tudd samay kilifa sëñ Muntaxa lu ko waay wax. da ngay làqu di ko wax xam nga boo bañee sëñ tubaa di ko nëbb mi ngi mel ni nga làqu di naan poson te ne doo dee boo bañee sëñ tubaa nag feeñal ko ñëw ba ci foire bi naan sëñ tubaa neexuma di dox yow sangoo essence dogaleeg daay da tàkk ba jeex dañ lay duma tuubaa laa bëgg seen làmmiñ ñu tooke yooyu seen làmmiñ ñu bon yooyu ñu ŋaaŋ uti ko nañ nañ ŋaaŋ waa tuubaa wadd sëriñ tubaa du fi gën ba noppi ay sëtam di fi yées mënta nekk te wen gaa nga bañ ca manjaxaan ko ñoom ñooñu koo ci gëstu tuuti gis lu bon gis judd bu ñaaw barke sëñ Tuubaa dama nga xool ñan la koo gis muy wax wax ju ñaaw tepp ko lan ne fa moom lay dellu si ne nii lan mooy jikko bu rafet makaarimul axlaax mhm. bu ñu nee makaarimul axlaax sa xel kan lay dem mm, ci ji jamono du dem sax ca yonent bi ma taxoon mu wàcc mm, du dem ci sëñ daaru asan njaay mhm. sa xel du dem ci keneen du dem daaru salaam gi ma bokk du dem feneen bu ñu nee makaarimul axlaax ji ko ju rafet xel yëpp sëñ abdou karim la jëm mhm. lan la ko sëñ Fallou waxoon ci karaw gu weex gi hmm? lan la ko sëñ Fallou wax dana woon bis bu karaw gi weexee rek lu mu ñaan mu am léegi nag li metti gaa yi dinaa la ko wax tey ah, <laughs> danoo dem Europe dox ay podo ba naaw nit ñi raw leen. ah fi dara. koo dégg mu naan réew mi na tàkk yorul dara. man bëgguma caarooy tàkk parce que dama faami kër. xaadim Samb bëggul aseg naa tàkk ak njabootam fa la ne. fi la buñ ko woon am na lu xew aseg naa léegi mu jóg buñ ne woon am na lu xew caarooy léegi mu jóg. koo dégg mu naan nañ yàq nangam. Mm-hmm. yorul dara. mais ñu investir ci réew mi yor ay employé mhm. ñuy jël ay cent personnes bëgg nañ réew mi tàkk mais mhm. yoroo dara dem Europe nit ñi raw la mhm. paas boo ñibbisee sax amoo ko faaw ay nit mereen kenn maam dangaa mere maam moor sa benn information jox ko nit fay ko pour na la yàq ndax bu ma ko yàqee ci dëkk bi kat dañ may jël si ah naa ko jox diw mm-hmm. mais loolu daa tax kooku yàqu bala ngaa yàq nit mm-hmm. mu yàqu day fekk nga baax mm-hmm. dëgg la ñoo xam ne ma ne la ku ñu xasut baaxoo macha allah sëñ bi euh, mu mel ni xam naa ni. ñu bëgg rek lañu àll lay waxee euh, ndax waxtu bi mu ngi bëgg a dem. ñu dañoo sof waay sujet yu bari. Euh, dernier sujet bi sëñ bi rek pour ñu. pour ñu réew mi pour ñu <laughs> xam naa ni fu mu toll nii daanu nga yàgg na dernière question rek pour ñu libérer la ndax war nga dem Touba TV am fa émission muy génn sëñ Abdou Bara Dolly génn gi mu génn wax ko ci Sonko mu mel ni sax sëñ Cheikh Thioro Mbacké bu Pastef député Pastef dafa.